te ñun ñëpp ñu Sénégalais xam nañ lu mu demee. waaw dañoo maanaam def magasin bi nga xam ne produit bi ñu xayal. waaw te loolu dañ ko war a lànk. waaw waaw donc mooy ñëpp ñëpp ñu ñëw ci combat bi. incha allah incha allah dina baax. voilà dafa nekk courant bi de la ñuy wax. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Sall dafa jël alal Sénégal bi yëpp jëndee ko deuxième mandat ba donc xaalis amatul ci réew mu bëgg na ne ñun baadoole yi nañu cotiser waat pour fayaat ministre yi seen salaire yi fayaat climatiseur yi ñu war a taal fayaat seen doom yi ñu war a jàpp D'accord, d'accord, mais ces gens, on demande une autorisation. La permission juste pour distribuer des flyers. Alors que j'ai croisé des jeunes de la paix qui distribuent des flyers. Mais dans la rue, dans les rues, même à l'université, allez les arrêter au sac. Vous avez assisté à l'arrestation de Clifford. nous allons continuer le combat tant qu'il y aura pas, tant que, tant que cette dictature n'arrête pas, nous allons continuer. Okay. Khalifa a arrêté comment La police. Ouais, mais c'est une injustice. Une personne, deux personnes qui marchent, qui distribuent des flyers. Est-ce que c'est normal de, de l'arrêter Bon, laissez-nous distribuer les flyers. De toute façon, on avait. Laissez-nous, il faut éviter ce genre de rassemblement. Laissez-nous distribuer les flyers. On Non, mais la police a compris le jeu ridicule de l'État. Pourquoi on arrête des gens pour juste. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. ay flyers Alors, euh, j'ai envoyé. Il a compris le jeu ridicule de l'État. Il l'a compris. Et donc, ils nous ont relâchés au bout de chemin. man ak euh, Daouda Wade ah, la ñu jàppoon. boo defe naa deful direct tey. waaw tey defuñu direct tey si ñëw rek dafa cher noonu. voilà ñoo lànk ñoo bañ. waaw. lii mu jeex daal lii dara newu ci ñu bàyyi ñu eggal suñu visite bi Voilà, voilà c'est ça. Excusez-moi. Les jeunes commissaires qui sont dans les commissariats. En tout cas, la police n'acceptera pas qu'on l'instrumentalise pour un jeu ridicule. La police ne va pas accepter ça. Donc vive notre police, vive la liberté des droits, vive la liberté des citoyens. ne munuñ ko wala ñu leeral ko ba mu leer mais leeraloo dara leeraloo dara nga ñëw teg nit loo xam ne attanuñ ko du ñu kaas daañu kaas même bu ñuy liggéey réew mi xaalis bi ñuy jël di ko liggéey réew mi nañ ko leeral buñ ko dee lekk ñu xam ne ñu ngi koy lekk ñu wax ko jeex na man fay naa sama facture ñàkk pexe ñàkk pexe man borom kër laa man dama daan fay 19000 ñu ngi may indil 36500 est ce que loolu se yoon la c'est malhonnête waaw ñoo lànk nag voilà ñoo lànk ñoo bañ. man moom balaa Macky Sall. yow loo xam ci mbir mi man maa ba Macky Sall. ba ba ki ko xam. ceeb bi mu ngi ci woon quatorze mille cinq cent quatorze mille léegi mu ngi ci dix huit mille vingt litres diwlin quatorze mille la doon jar mu ngi ci dix huit mille encore. courant bi yokk na li gën a garaaw na mooy ndox mi nga xam ne dafa dox suñ bi suñ biir mémoire ci nit ñu xamuñu ko forage yi nekk ci àll bi yëpp jaay na ko man fi ma dëkk région de Kaffrine forage yi suñ mètre cube bi 200 la woon mu jaay benn société boo xam ne 250 la mooy flex eau très bien yaa ko xam nga léegi ndox mi lañ def loolu lañ def Kër Madiabel dëkk Serigne Mbaye Thiam moom mu yore ministre ndox mi dafa ñëw yokk jaay ndox mi beneen kii ñoom ñoom yokk la ko jëlee yóbbu ko 250. am na ñu koy jaayee 300. am na ñu koy jaayee 300 ca euh, alors que ñun mënuñu am ndox. teg ci. waa ñoo lànk ñu ngi woote pour ngeen a fay facture yi di ñëw est ce que pare ngeen pour topp loolu. très bien duñ kenn fay facture facture ndox duñ ko fay war courant waxi duñ fay dara. a faral président Macky Sall. dañoo def erreur dañoo juum dañoo juum waaye nag benn bu dul ñaar yomb na. bu dee na fa leen troisième mandat ndax ànd ngeen ci. xanaa mu jaar suñ dox gi jàll.